El Hadj Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye El Hadj Mame Boye Diao Bassirou ak Thierno Alassane Sall. mais euh, lii avis de décès mhm. la maman de Wally Seck moom moo moo décédé. moom la ñu gis ni bon ñu ngi jégalu mbokki internet yi ah il fallait que ñu passer l'information mhm. euh, mooy xibaar bi nga xam ni dab nañu euh, sànq rek euh, te ñu gis suñu mbokki suñu confrères yi waa sans limite dugal ko mhm. moom yaay Wally fekk kon fekki na moom yi ak borom këram di Papa Thione ñu ñaanal ko suñu borom jéggal ko yërëm ko te xaare ko àjjana Wally sekk itam vraiment métti na ñu ñaanal ko suñu borom may ko xool bu muñu wàll. Maya parce que. réew mi la également si la bokkoon def liggéey bu am solo. waaye vraiment mu nekk euh, femme bu soumise ah femme bu soumise ndeysaan uuf ay doomam jàppale borom këram xam nga ndeysaan fi ñu toll nii xool yaa ngi commencé kii sax ndax euh, déjà bon waaye la ñëpp xalaat daal parce que ça reste sa maman mu ngi neen yàlla def na li gën nag bon. Euh, sunu borom nag moom mooy moom mooy rahman mooy rahim mm. moo ñu sàkk macha allah ah li ci des rek bañ koy ñaanal mu muñ rek de ndax euh, dara gënu metti nag waajur bi dem. ñu ne bàyyi dem yàggul déet doy ndeysaan yaay dem te ki ñëpp gis nañ waa li mel ak euh, yaayam. ak village ak magam tamit vraiment c'est choquant franchement euh, métti na moom. metti na et puis c'est triste gisuma ko nag instant bi parce que ñu ngi conseil constitutionnel bon fii la ñu xibaar bi fekk xam nga sunu naataangoo yi bind ko. mais c'est quelque chose de vraiment très triste daal vraiment. jabootu taskatu xibaar yëpp euh, ñu ngi jaale ki nga xam ne moom mooy Wally Seck rawatina la presse en ligne ñoom ñi nekk au niveau du conseil constitutionnel donc ñu xamee ko noonu ki nga xam ne moom mooy waajur bu jigéen di euh, waajur jigéen waaw Sénégal système dugal na ko donc ñun ñëpp jàllale sans limite Seneweb euh, Dakar Actu Flash Info euh, le Dakar waa TV Dakar Instant Métro Actu ñun ñëpp euh, ñu ngi daal di jaale ki nga xam ne moom mooy Wally Ballago Seck di wax ko di ko wax ne ki nga xam ne mooy waajuram bu jigéen bi suñu borom daal di koy xare àjjana Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy teeru fi nga xam ne moom mooy Firdawsi waaye Cheikh ñuy wéyal tamit waxtaan ba léegi parce que actualité moo mel ni ni mu ni mel dëgg Euh, am na lu ñu frappé au niveau du pays waaye tamit li nga xam ne moo xew au niveau du conseil constitutionnel euh, sénégalais ngi bàyyi xel bu baax lan moo nar a tukkee fii euh, di wax ne bu bu leen bouger mettre seen téléphone même su nekkee da ngeen génn branché leen seen écouteur daal di déglu nga xam ne moom moo tukkee fii xam ne moo au niveau du conseil donc da nga may jéem a liiral ñe quelques rek waxtaan ak ñoom interagir ak ñoom par rapport bon ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi réagir ah, ci ah, décès wu surtout yaay jaaga bi am na ñoo xam ne sax mënuñu ko gëm mais ah, malheureusement que ni gis nañu vraiment suñu suñu suñu naataango yu bari reprendre nañu ko euh, ku ci mel ne sans limite wax nañ ko sànq ba ci Sénégal 7 <laughs> instant bii nii ñoom jox nañu xibaar que ni kii la di yaay jaaga vraiment après moom yi après coon Balago Seck après moom. vraiment c'est c'est c'est dur mais c'est la vie quand même euh, yàlla moo ko bindoon moo ko jëlaat rek voilà Wally Ballago Seck suñu borom na ko may euh, xolub muñ euh, vraiment kon yaakaar naa que ni mm, mi ngi noonu ñu continuer ak yéen. soo amee ay kàddu yoo si war a sànni rek parce que réew mi la. waaw lu ñu mën rek mooy jaale ko jaale ñëpp ñi nga xam ni ñooy famille am ñi ko dese yi ñi ko wër vraiment lu tiis la la succession de décès bi nga xam ni dugg na ci këram ñaana luñ ko kenn waaye li ñu mën rek mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñ borom bi nga xam ni fa la jóge woon ci moom la dellu rek di ñaan mu la fa mu jëm jëm gënal ko fuuf fi mu jóge te suñu boroom jéggal ko ci yërmandeem ko kawe ko mhm. waaye nag euh, ñuy ñuy réconforté waale rek di ko wax waaw bokk nañ naqar bi ak moom mhm. quelque soit xam nañ ni métti na trop mhm. li nga xam ne moom moo fi toppante di magam moom di nga xam ne ñoo xam ne ñu ko jege mhm. waaw ñi ñi ñi ngi wax France la la la la àdduna donc génne àdduna ci ci sa réew rek dafa métti waxuma la ak bitim réew waaye doon na li nga xam ne métti na trop te ñuy ñu koy jaal bu baax ñi nga xam ne képp kuy famille Seck Euh, ak mu doonoon li nga xam ne mooy kàddul njaal yi nga xam ne mooy la presse en ligne ginnaaw bañ nekkee fii ñu jox ñu information bu tiis nag mu mel ni euh, xaw a affecté parce que wax euh, nit ku génn àdduna day mel ni sa bopp la di xalaat ne ñëpp ñun jour bu ne ku nekk si boppam mun na génn àdduna fu mu nekk donc mbir yi suñu borom a ko yor di ko ñaanal suñu borom daal di koy xare àjjana yéntu sala solo daal di koy daal di koy teeru fi nga xam ne moom mooy àjjana fir daw si waaye lu ñu mel tamit dina tax ñu war a bàyyi xel bara boor li nga xam ne mooy suñu nekkin si askan bi parce que dañuy wax nit nitay garabam euh, su ko ndogal dalee si boppam euh, dinañu xool euh, jëf yi mu def ana lan la defoon ana lu mu fi bàyyi donc euh, ñuy euh, rafetlu bu baax ñu ñëpp waa presse bi jaaga euh, nekk nekk noonu ñun nga xam ne moom mooy la presse sénégalaise rawatina ñi nga xam ne moom mooy les médias en ligne ñi doon dem di ñu mel waaye di tamit ñi nga xam ne mooy les hommes politiques si lu ñu mel nii nañ bàyyi xel bu baax a baax xam ne bis day ñëw ñu daal di génn àdduna donc lépp contrat bu ñuy signé seen big yooyu ñu leen jox ñuy signé def di wane signature si signé lépp li nga xam ne waruñ ko signé si kayit bi wala arrangé wul askanu Sénégal ëllëg dinañ ko laaj te ëllëg boobu noonu yàggatul daanaka dundu sax li nga xam ne moom mooy quatre-vingts ans si jamono ji nii bëreetul wala sax soixante-dix ans soixante ans euh, durée de vie bi bëreetul fi nga xam ne mooy si mooy mooy biir àdduna bi jeex na ba noppi te ku dem ay nettal lay mujjee donc di wax ne ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñun ñuy déglu muy euh, coalition boo bokk parti boo bokk xamal ne lii nii ëllëg mu ngi lay xaar ñun ñii sax di wax suñu kàddu yi ëllëg mu ñuy xaar waaye loolu dañuy fàttali rek li nga xam ne moom mooy euh, bakkan euh, du woy si nga xam ne mooy àdduna jëf bu baax rek moom mooy woy rawatina li nga xam ne moom la fi suñuy mag yu bëri daal di bàyyi ku ci mel ni Kéba Mbaye mi nga xam ne bàyyi na fi woy bu rafet si nit ku nekk ak responsabilité boo mënti yor si li nga xam ne moom mooy biir réew mi fàttali ëllëg di nga dem ñeneen ñëw maanaam les institutions euh, demeurent restées donc waaye les hommes ñoom ñooy def maman kii bi euh, comment dire locale yi daal pour être euh, euh, maire si je me rappelle ah yaa ngi rappelé loolu mais waaw waaw waaw mais xaaru ko fi dafa nekk candidat juste rek avant de avant yi joxe sax kii yooyu décédé na moo tax lu waaye di yootu rek nga ñaan yàlla fekkee ko muy muy muy muy muy candidature des élections wala soit mu nekk diplôme wala soit nga jàng ba génn génn université gis nañ ko fii xaaru ko xaaruñu ko parce que loolu seen wërsëg waru ci woon a nekk moo tax lépp lu nit sumb rek na nga ñaan yàlla sunu borom fekkee ko te boo ci dugg te na ci dugg anim bu rafet rafet rafet ah, di waxati rek encore parce que ñun des fois dañuy wax ñi ñu blâmer te des fois sax suñuy wax sax dañuy réfléchir ba mujj dañuy ñeme sax jaa ci digg ba ah di di di sànni kàddu rek waa conseil concerné dañ ko rafetal daal nañ ko rafetal parce que sunu waaw suba sunu borom moo ko moom sunu borom moom moom waaw suba déedéet sunu borom moo ko moom yaa ngi dégg li war a xew fii sunu borom nàmm na ko ba pare ki war a yëre réew mi sunu borom nàmm na ko pare waaye nag tamit nag euh, des fois nag sabab lu doomu aadama da ciy daal di euh, bokk mais ci kaw sunu borom ànd ci. nit eh, am na ci ay tolof tolof boo xoolee tey ci kaaw Ablaye Wade tey ji mal mëne nañ ko lu ne daj na ko fii ah manifestation moment boobu la gënoon a métti ñu doon jàpp journaliste di leen man mi tànn nañ ma par carte keneen ak keneen ak keneen balaa ngaa génne sa carte sa boobu taa ñu ngi rajo balaa ngaa génne sa carte bii sax ba wuli nañ la wuli nañ la maa ngi yenu la yóbbu maa ngi jékki-jékki sa wëndele yoo ci benn côté sànni la ci àll bi nga daan dox li ci des ñëw li ñu ko wax te ñemuñu ko moo tax des fois ñuy demander sax euh,

liberté de la presse boobu ba léegi ñu jooytu ci yuuxu amoon Afrique mais kenn mënu ko euh, kenn mënu ko am boobu léegi parce que xëy ñoom les gouvernements africains xam nañ lu tax nangu ñu ko jox la presse. Mm. parce que li presse bi téye moo ëpp foofu li presse bi génnee parce que lu lu lu ci mënta am rek on on informe juste et vrai euh, dans l'éthique et déontologie des journalistes mais dans ce cas aussi y a des choses aussi c'est à retenir mm. on dit pas tout. Il y a kon la presse c'est pas lépp lañ war a wax quand mais on connaît la vérité où se trouve parfois xam nga et puis dinañ koy junj des fois nit ñi di koy dégg mais liberté de la presse bu amee rek ñu xam ne fu wàll di mujjee ak bëtam xëy na ragal la moo tax mu ni ñu ko jox euh, les journalistes africains euh, def nañ ay association def nañ ay kuréel lu nekk di ci jooy boobu des années ba pare mënutoo sotti ñu ma ñëwaat ci kaaw Wàdd René gis na ko moo xoolee trace Wàdd moom mooy trace Ousmane Sonko déjà boo xoolee te fu mu mujjee moo mujjee yor réew mi mi ngi noonu moo tax euh, sunu borom mooy nàmm mooy rahman mooy rahim yi di du am yaa ngi dégg moo tax lu nit di sumb rek nag ci xool yàlla waaw ñoom ñi nekk foofu ci biir yore clé yi di ubbee ko tëj nañ xool ni xam ñaari malaaka yi nekk seen i mbagg yaa ngi dégg ñu ngi bind ñoom tamit ba léegi yamoo xiyaam moom mooy vrai parrainage ba mm-hmm. boobu mooy vrai ba boobu mooy vrai vrai résultat ba bu keroogaa sa cëri du ñuy wax de bind bi bi gënum bindee dootoo ko gis na tubaab bi yaa ngi dégg loxo bi nga doon bindee dootu ko rëddati ndax booba sunu borom da koy téye làmmiñ dañ koo teree parce que ñu ne làmmiñ du wax dëgg kenn ku ci nekk nag cër bu di nekk mooy wax mooy wax lam doon jëfe ak la mu doon defee boo ku ci nekk sa bopp ngay tal loolu mooy yemal xiyaam la vérité la plus absolue sincèrement et véridique c'est la vérité allah voilà nañ ci bàyyi xel bu baax maya bi am na solo maya bett nga ma nag parce que li ngay li ngay wax nii daanaka mu ngi tooyloo sama xol te def naa mu ngi mu ngi tooyal xol ñi nga xam ne non maanaam bu bu